mbokki Sénégal 7 TV Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu di leen euh, ziar euh, di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp yéen ñi nga xam ni euh, kon yéen ay seetaan Sénégal set ñu ngi fii si Medina Baye gannaaw suba incha allah moo war a nekk kon li nga xam ni moom mooy gàmmu l'international Medina Baye Mawlid donc ñu ngi ñaanal mbokk internet yi ñi nga xam ni kon ñoo ñuy seetaan si réew mi ak si bitim réew. leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen kon di ànd ak yéen rek daal di leen dëgtal euh, la veille du gàmm ak euh, mbooloo bi nga xam ni kon ñoom ñoo ñoom ñoo nekk fii si Medina Baye taalibe yi bàyyeekoo fu nekk si réew mi bàyyeekoo fu nekk si àdduna bi ngir ñëw kon fi nga xam ni moom mooy euh, fii si Medina Baye yéen a gis noonu nag bu baax a baax kon li nga xam ni moom mooy askan bi. Euh, juma Medina baay bi moo nekk noonu kon mbokki taalibe yi mbokk awsa yi mbokku naar yi ñoom ñëpp kon fi na ne nii waxtu wi euh, dama leen di bàyyi rek toppal leen kon moom mooy dëkk bi ak ambiance wu gàmmu gi waaye tamit euh, zikkër yi nga xam ni kon moom ngeen di teewlu mu nekk lu am solo mbokk yi mu nekk li nga xam ne kon moom mooy euh, à 24 heures euh, le grand Mawlid euh, fii si kawlak ma bàyyi leen ngeen seetaan li nga xam ne kon moom mooy image yi ak pèlerin yi nga xam ne kon bàyyeekoo nañ fu nekk xanaa ma jël quelques réactions rek si pèlerin salaamaaleykum alors kilifa gi maa ngi lay nuyu. sant macha allah. fan nga dëkk. man Richard laa dëkk. foofu nga jugee ñëw fii. waaw fu laa jógee ñëw. kañ nga ak si kaw la. tey ay vers deux heures yooyu. gannaaw ba nga ñëwee Medina Baye tey lan nga yëg sa xol. Ah, mbégte rek ak ah, cofeel si Cheikh Ibrahim ak kontaante bu baax a baax ak yëg Cheikh Ibrahim bu baax a baax loolu laa yëg ñaanal réew mi si gàmm. macha allah baa ngi leen ñaanal jàmm bu sax leen ñaanal barke ak teraanga naataange di ñaan. chaque année muy gën a yokk mu gën a ñëw muy gën a yokk di jëm kanam waaw wallaahi ñaanal incha allah alhamdulilah. jërëjëf waaw a maa ngi lay nuyu yow tamit foog nga fan nga jigéen Rizal Top. ñoo ànd ñoo ànd. lan bi nga xam ne kon suba moo war a nekk gàmmu. ah du ma si wax dara lu dul yàlla nu yàlla may nañ ko fekkeewaat ay at yu bëri ndax fekkee ko daaw fekkee ko ren yombul ñu bëri ñu la gël baax juddu gël la baax lépp. fekke nañ ko daaw te ren fekke na yàlla may lan nga fekkee ko daaw fekkee ko ren yàlla nañu yàlla may at ñu ay at yu bëri ñu ndax mboolem jullit li ñu wuti ci guddi gi encore yàlla nañu ko yàlla may ci barke guddi gi ci nabi sallallahu alayhi wa sallam. noo ñu ziyaara guñu dañ ñëwoon ni di wajiba ji rek xaar bu ñu julli géeyeen dem ba suba ñëw ziyaara incha allah incha allah. sant la gërëm merci beaucoup. mbokk yi kon mu ngi noonu rek comme ni ma leen ko waxee rek si li nga xam ni kon moom mooy euh, moom mooy fii si Kaolack yéen a ngi gis noonu li nga xam ne kon moom mooy euh, pèlerin yi kon nu ñuy gën a bëree rek salaamaaleykum papa maa ngi lay nuyu. na ngeen def mbaa def leen dara. nga dëkk man fii laa dëkk. waaw waa Kaolack laa. nga gisee li nga xam ne kon mooy wàccaay gàmmu gi nga xam ne suba a doon incha allah. sant yàlla rek Cheikh Islam moom dafa liggéey loo xam ne si àdduna bi dem rek man dem naa si réew yu bëri waaye boo demee ne mbir na laa dëkk rek dañ lay amee sa lépp duñ la am ñoo xaajale boo ne mbir na laa dëkk rek mën nañ laa dalal moom ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla képp ku fi ñëw daal yal na yàlla faj yàlla mag yokk seen garaat seen patron yàlla may leen euh, loolu rek laa si amoon lu may wax dama am ku may seet jërë jërëjëf ban ban tele la Sénégal set baax na jërëjëf man boobu danaa koy seetaan suba kër sax baax jërëjëf baax na jërëjëf baax na ngi noonu ah. euh, papa maa ngi lay nuyu yow nan nga tudd man maa ngi tudd Younouss Sandaw nan nga tudd Younouss Sandaw waaw fan nga dëkk Gambia ah, Gambie nga moo ñaata yoon ngay ñëw Kaolack di amal gàmm uh, bari na dëgg dëgg takkuma ko waaye naa ñëw gàmm tey lan nga yëg sa gannaaw suba moo war a nekk gàmm gi incha allah. waaw xanaa kontaan ak sant yàlla subhaanahu wa ci xéwal gi waaw ndax wax dëgg yàlla bés bu mag la waaw kontaan nañ ci bu baax di sant yàlla nga xam ne xéwal nañ ba ñu fekkee waat ko ren waaw. Mhm. ngay wax lu muy rek di gën xiir nii ñuy dem ci gàmm di di teewe gàmm di dem wax yonent bi sallallahu alayhi wa ak ak jàngaleem waaw. jërëjëf moom gàmm la bàyyeekoo. donc kon ñu avancé rek dem fi nga xam ne moom mooy ci kanam euh, ngir mën leen euh, wan kon bu baax a baax li nga xam ni moom mooy euh, moom mooy pèlerin yi taalibe yi nga xam ni kon dañoo ñëw amal ci gàmmu fii ci Kaolack comme ni ko réew mi yëpp ak àdduna bi yëpp di gàmmu ñu fàttali leen ne kon dafay nekk loo xam ne rek lu ama am solo la ngeen ànd seek Sénégal set kon bi nga xam ne moo leen di jox toutes les informations waaye tamit. wan leen li nga xam ni moom mooy euh, xew-xewu gàmm euh, fii si Medina baay euh, su ko defee rek ñu wan leen ko en direct fii si Sénégal 7 kon ñu fàttali leen ni ñu jël ñi nga xam ne kon ñoom ñooy suñu soxna yi ñoom dañoo ñëw pour jënd li nga xam ni kon moom mooy photo Baye Niass salaamaaleykum na ngeen def voilà ñun da ngeen ñëw pour jënd photo baay donc ay taalibe leen xam naa dañoo xaw ragal li nga xam ni kon moom mooy moom mooy caméra salaamaaleykum maman maa ngi lay nuyu def. yow fan nga jugee ñëw gàmm. Fuuta nga jóge waaw depuis ban année yaa ngi ñëw gàmmu Kaolack. man depuis daawaati jéeg. Mm, depuis jéeg. Mhm. tey ginnaaw ba nga ñëwee Kaolack lan nga yëg sa xol ak euh, Kaolack bi nga xam ne kon suba la war a amal gàmm am àdduna. Ah, sama xol wax fa dégg yàlla sedd na man dégguma olof. <laughs> d'accord jërëjëf <laughs> kon mu ngi noonu ñu euh, dem si kanam rek pour mën a mën leen wan bu baax a baax kon li nga xam ni moom mooy.

2002 ba léegi yaa ngi ñëw gàmm fii kaw waaw incha allah waaw. lan nga gisee li nga xam ne moom mooy wàccaayu gàmm bi rawatina nga xam ne kon suba la ñu war a amal gàmm. ah beneen changement la ma joxaat rek beneen changement la ma joxaat rek beneen changement la ma joxaat waaw maanaam ndaw ñi ñu gën a góorgóorlu si si fay du baay bi buñ si jàppee rek ëllëg yowmal xiyaam du njuru si sa kanam suñu borom bi waaw barki Muhammad waaw. lan ngay sa xol. kontaan rek kontaan damaa kontaan lool waaw. waaw baax na jërëjëf waaw merci maa ngi koy sant di ko gërëm ah euh, ñu wan leen li nga xam ne kon moom mooy xew-xew gàmm euh, à quatre heures donc li nga xam ne moom mooy gàmm Kaolack ah euh, ñu avancé rek comme ni ngeen gisee noonu li nga xam ne moom mooy mbooloo mi yéen a ngi ànd ak ñun si Sénégal set fii kaw lag ngir mën leen dëgtal kon li nga xam ni moom mooy euh, moom mooy xew-xewu gàmm maa ngi lay nuyu grand na nga def alors yow tur bi la. Babacar Niang. ah Babacar Niang. fan nga dëkk. Koungheul. waaw ah, mën ah? ah, laa jugee waaw. yaa ngi ñëw euh, fii Kaolack. 2005 ba léegi maa ngi ñëw Kaolack. 2005 nga commencé gàmm. waaw laa commencé gàmm si waaw. wax tey kon fii si Medina. kontaan naa yow mi nga xam ne mbir mi am li nga xam ne Afrique waxuma la àdduna Afrique mosul fee am yokkute xam ne tant bi nga xam ne li buy taw doy dara ak waaw comme man li ma bëggoon man li ma bëggoon mébét def si Médina comme comme comme taalibaay li ma bëggoon man si sama mébét nga xam ne Médina li laa bëggoon mel comme sama kontaan naa daal dëgg-dëgg sama njot daal xam naa ne am na waaw man mu yoroon bu suuf sax fi am lépp si ay karo lépp si ay karo leen dox lii moom yokkute gu gu am puissance la quoi kontaan naa dëgg-dëgg waaw. ngay ñaanal Sénégal bi yëpp. àdduna yëpp maa leen ñaanal jàmm ak salaam maa leen ñaanal euh, koom gu ànd ak wér ak yokkute gu ànd ak yëg-yëg ak julli ñi xam ne doon benn comme instant yi ñun julli dañoo duul benn quoi loolu rek moo ñu sonal waaw julli ñoom duñ benn dañoo war a doon benn parce que. yàlla nee na maam buñ wax si na bi jimeen wala jàppee si bu nga xam ne amul tàqalu ko waa kenn waa kenn du man si dara waaye loolu ñun julli loolu rek moo ñu dese loolu rek instant yi loolu laa jooy waaw julli di ñu bu baax maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar ah, nga tudd man Sidi Diallo lañ may wax si man maa ngi dëkk ba Rufisque Dakar Rufisque ah Rufisque nga jugee waaw maa ngi yàgg ngaa ñëw gàmmu kaw waaw waaw yàgg naa ñëw daanaka euh, daanaka ay 2021 ba léegi maa ngi fii alhamdulilah waaw maa ngi sant bu baax. boo ñëwee Medina nga xam ne ëllëg incha allah moo war yàlla rek ndax Baye moom ku ko xam moom tettal la jëmmum moom yàlla la lay tettal yow yaay dem ba àgg ci yàlla xam ne mbir yi nag dëgg-dëgg ki ma àggali ci yàlla rek moo jara a sant mbir nag du ma sàmba wala mu denn bu ne Baye Baye international la yemul rek Sénégal Baye yemul rek euh, Afrique Baye monde entier la boo gisee tey. photo yi ñu def ci esplanade bi ku ñëw ak représentant am di nga xam ne Baye monde entier la Sénégal nag dañoo war a yeewu si Baye ni ñu yeewoo ci Baye mooy da ngay gis koo xamante ne da koy jege lool wante mu ngi dem di wuti leneen amaa ne li ko gën a jege loolu mooy li koy jariñ moom bu xamul loolu nag ñeneen ñuy jógee fole ñoo ñoo ci man di jariñu kon Baye Baye international la wante sénégalais yi dañ cee war a gën a mën a jariñu ndax ci histoire humanité ñu yàlla jagleel muy Baye Niass maanaam àdduna kaw suuf doo dootoo ko gisati kon bu ñu yàlla jaglelee Baye Niass war nañu xamaat téewaat te gën a fonkaat ñi nga xamante ne moom la ñu Baye moom la yàlla jagleel muy Baye Niass radiyallahu taala anhu nga xam ne mbootam yàlla bi mu nëbboo moo ñëw ne moom képp koo xamante ne moom la Cheikh Tidiane loolu laaj yoo am looy looy laaj Cheikh Tidiane mën nga ñëw pour nga laaj ma xam a tontu la mbootam yàlla mi moom la ko yàlla dénk mu koy xamale jaami kon Baye Niass Baye Niass international la na si Sénégalais yi jariñu rawatina nag guddig yonente bi nga xamante ne ko ku ci nekk xamoon na ne nu mu koy téyee ak nu mu koy fonkee ma nga xamante ne kon jaamu yàlla yi war nañ gën a fonk lool te gën a xamaat ni jëflante ah, Baye Niass loolu rek laa amoon ci li may wax tey wane képp lu fi waay aajo mën a mën a am yàlla na ko suñu borom faj. Ah, waaw di ñaan rek lu lépp bépp aajo bu si waay mën a mën a mën a dékku rek yàlla na ko euh, suñu borom saafara si jaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp jàmm ñu koy fekk ay ati ati di ñaanal télé bi yàlla suñu borom gën ko yaakaar yaatal gën ko yokk ba ñu fi kawe kawe jërë ngeen jëf. sant la gërëm alors ñu jël ñeneen ñoo xam ne kon yaa Seyda maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. yow nan maa ngi tudd Sarata Diallo. Sarata fan nga dëkk. Euh, maa ngi Kaarang. Kaarang nga dëkk. waaw Kaarang laa dëkk kay. bii mooy première fois ngay ñëw gàmmu wala. non non c'est la troisième fois may ñëw fii nii. waaw. Euh, nan nga gisee kon li nga xam ni moom mooy wàccaayu gàmmu. ah macha allah kontaan na torop torop torop bi ma duggee si tante bi moom non vraiment dama kontaan nga moom macha allah yal nañ ko yàgg di teewee ay déwéni déwéni déwén yàlla yàggal fi suñu sëriñ yi may leen wér ak weer gu yaram macha allah kontaan nañ torop merci beaucoup. alors euh, ñu ngi bu baax nan nga tudd yow. man maa tuddu baaba Babacar njaay waaw jóge fii ba Saint-Louis. Ah, macha allah waaw. yaa ngi ñëw gàmmu Kaolack wala. waaw yàgg naa fee ñëw nag waaye gàmm gu neex la macha allah. ku mucc ay année bi nga commencé gàmm. Euh, maa ngi ko jàpp jamono 2019 kii 2007. waaw boobu laa fi commencé ñëw. waaye macha allah waaye kii tamit sama naataango bi moom mi ngi fi soog a ñëw si gàmm ren laa ko fi indi waaye macha allah si moom waaw. Oh, waaw ni aleykum salaam ñu ngi siyaar. Ah, tur bi nan la. Aliou Ndiaye. Aliou Ndiaye fan maa ngi duggee région Louga. Ah, Louga waaw. lii fois ngay ñëw gàmm. première ñëw gàmm bi. yàgg na maa bëgg a ñëw waaye ren la ko yàlla dogal. tey nga ñëw gàmm macha allah nga gis mbooloo bi di dégg ci kàr yooyu tey lan nga yëg sa xol. macha allah kontaan lool gàmm gu neex ak mbooloo bu bari mbooloo yëpp ànd bëgg yonent yàlla Muhammad waaw ñu ci ndokkal mbooloo yu baax di leen siyaara di ñaanal gàmm ak jàmm barke yonent yàlla Muhammad ngay ñaanal Sénégal. Sénégal maa ngi leen ñaanal naataanga ak xéewal ak yokku ak sutura di ko ñaanal mboolem jullit daraja yeneen ti. macha allah kon li nga def rafet na lan ngay yëg sa tamit tey ji ah tey moom kontaan rek. waaw xam nga alxuraan bu moom mooma te alxuraan bu moomee rek xam nga rek macha yal na yàlla gën a jàppandal yëpp rek te leen bu baax si daraja Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha maa ngi jël sama papa ji rek maa ngi lay nuyu na nga def. maa ngi lay fay bu baax di la ziar. Hmm, yàlla ndokk Omar Thiam lañ koy wax. instant fan nga dëkk. maa ngi dëkk Fouta département Podor. département Podor. waaw département Podor laa jógee maa ngi sant yàlla baax di julli si yonent bi di sant suñu ñaari wajur di sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye rek moo ko jar fu ñu jógee dafa soore ay kilo kilomètres yu bari ngay ñëw pour siyaare si Baye ndokkeel ko tatagal ko nu amul kenn ku dul Baye Baye Niass rek la am waaw lépp lu am baay moo ñu ko gënal ci àdduna àdduna ak àllaaxira ñu ngi siyaar ñëpp ànd ak sama gaa yu baax yi ñoom ñoo bokk ànd jógee ah, département Podor ñi ngi siyaare di ñaan yàlla buñ fi ñëwee ren yàlla yàlla may ñu yàgg fee ñëw aussi yàgg nañ fee ñëw aussi ba léegi waaw di leen ñaanal yéen yàlla yàggal leen lool seen télé xaw ma seen rajo bi yàlla yàggal ko mu gën nekk ay télé télé ak rajo rajo bu baax yàlla guddal seen fan bu baax di siyaare ñëpp di ndokkal ñëpp tatagal ñëpp nag ci barki gàmmu gi ah ok jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ah, alors euh, ma bàyyi leen rek ngeen suivre li nga xam ne kon moom mooy xew-xew euh, xew-xew gàmmu gi fii si Medina bàyyi nga xam ne kon niki ëllëg incha allah si dimanche bi la ñu war a màggal fépp si adduna bi juddu yonent yàlla xam sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum sama yaay maa ngi leen di nuyu. voilà yéen fan ngeen jógee bàyyi leen ma rek ma nuyu leen tuuti fan ngeen jógee. waa waaw. bii mooy bii mooy sa première nga ñëwoon naa nag waaye maa ngi naa di fi ñëw. nan ngay dundee actuellement gàmm gi. ah ah. nan ngay dundee fi mu ne nii li nga xam ne moom mooy gàmm. ah macha ba ñu ngi tray rek ndànk-ndànk waaw xam nga bi moom léegi dara neexut waaw ñu ngi mën daal waaw. <laughs> yaa fay nañ la ah, faat la. yow. maa ngi dëkk Gambie. fan si Gambie nga dëkk. Sinthiou Alaaji. waaw ah, tey jii nan ngay dundee xew-xew waa gàmm gi nga xam ne suba incha allah la ñu war a amal gàmm gi jàll jàkkaarloo. macha allah gàmm gi moom tey sax bu fi yemoon mu neex waaw. parce que gàmm gi moom daal ubbite ubbite tante bi rek naka laata sax turbine bi rek doy na gàmm waaw macha allah loolu daal gàmm gi daal maam lu ma mën a wax daal si gàttal su fi yemoon rek tey day neex waaw macha allah yal nañu yàlla jàppale rek ñu fekke ay gàmm yu bëree bëree bëri si barke Seydina Muhammad ñun ñu waa gàmm bi bu baax a baax donc ñu ngi noonu ñoom waa gàmm bi lañ euh, kon nag comme ni ma leen ko waxee rek ñoom nag baal ma jëlal ma ambiance su si kanam noonu ak mbooloo bi nga xam ne kon ay taalibe jugee fu nekk euh, si réew mi si bitim réew tamit ndax xam ngeen ne ñi nga xam ni kon ñoom ñooy bàyyeekoo Gambie ak Nigéria euh, Niger bari na lool euh, ngir ñëw fi nga xam ni kon moom mooy fii si Medina Baye kon ma ànd ak yéen rek ngir dëgtal leen li nga xam ne moom mooy xew xew gàmmu gi ak tendance avant gàmmu ëllëg incha allah ngeen mën koo seetaan si seen chaîne leader Sénégal 7 comme ni ngeen nekkee di ko suivre. Euh, fi mu ne nii euh, ba tey pèlerins yi hmm, ñii euh, ñëw nañu trois jours avant gàmmu am na ñoo xam ne ñoom tey la ñuy door ak si kon moo nekk noonu ngeen di gis ma continuer rek donc ànd ak jéey ah ñu wan leen dëgtal leen li nga xam ne moom mooy situation gàmmu gi fii si Kaolack ngeen di ko seetaan taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima kon bàyyee ko fu nekk hmm, ngir mën a ñëw amal li nga xam mooy mooy gàmmu gi donc baal ma jéey na ngeen def fan ngeen dëkk. waa tubaab Jalaaw. waaw. kan ngeen ah? tey lañ ñëw. Ah, bi mooy ñaata yoon ngay ñëw gàmmu Kaolack. yàgg na de depuis ma nekk xale ba léegi. jàpp nga année bi nga commencé gàmm si. man non non parce que dafa yàgg trop. depuis ma nekk euh, xale ba léegi maa ngi ñëw gàmm see. sama actuellement préparatif gàmm ak xew-xew bi fi mu ne nii fii si. rek mbégte rek. waaw mbégte ci baare comme ni ko Akhlou Brick waxee. mbégte ci baay rek ndax ñun moom amuñu lu dul Maolana Cheikh Ibrahim Niass bëgg baay rek moo ñu andi fii nii à chaque fois ñu koy fuklu loolu rek waa. lan woo ci bëgg baay ñu ñëw ànd bëgg bëgg baay bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bëgg baay mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu daal laay woo ci samay morom ñi mel ni man tu tu tànk yi ak mag ñeeg ñëpp. ndax Baye moom ñëpp la fi nekkal Sénégal ak kudul Sénégal ak ñëpp monde entier Baye mooy international waaw. gërëm depuis Toubab Dialaw la jóge kon ñu continuer rek jël ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, pèlerins yi bàyyeekoo fu nekk ah, euh, daal di ñëw baal ma ma jël sama yaay rek ma jël leen ñoom tamit ñëw nañ fi nga xam ni kon mooy euh, si si tante bi salaamaaleykum sama yaay maa ngi leen di nuyu def. kon nan nan nga tudd. man Ndeye Diop laa tudd. Euh, maa ngi dëkk Léona euh, mais di vivre léegi Dakar. Dakar mais waa nga kawe. waa Kaolack laa Kaolack passe pure et dure. macha euh, nan nga yëgee xew-xewu gàmmu gi ak préparatif yi nga xam ne kon ëllëg incha allah lañ fas yéene màggal juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais mbégte bu ak dolli di sant yàlla di julli ci Seydina Mouhamed sangu sang yi parce que moom moo waral lii yëpp.

Euh, fi nga xam ni moom mooy fii si Medina baay hmm? comme ni ngeen koy gisee noonu si image yi euh, mbooloo mi macha allah. voilà ñu jël asalaamaaleykum euh, kilifa gi maa lay nuyu nanga nga def alors fan nga jugee. man nag États-Unis laa jógee Atlanta dëkk bu ñuy wax Atlanta ci États-Unis. yow bi nga jógee. diaspora bi laa jógee waaw. waaw ah. ah, ñëw. naa fi deux ou trois jours. trois jours waay. dama ñëw pour gàmmu si waay waaw. ñaata ngay ñëw gàmm. chaque année damay ñëw gàmmu si. macha allah chaque année damay ñëw gàmmu si incha allah. koy dundee kon waxtu wi. ah mais kontaan lool et puis euh, vraiment y a rien de tel y a rien de tel fii moom bala ngay koy xam daal ñëw ngi nga ñëw fi teew ci boo ci teewee benn yoon doo ko bëgg a tardé te mukk la àddina parce que àddina bi yëpp ñoo fi tase ci dëkku Cheikh Ibrahima Niass mbégte bu mag la sant yàlla bu mag la euh, fekkee bés yu mel nii ci weer wu mel nii ci dëkk bii. loolu moom kenn mu am lu ko ëpp gëm naa loolu voilà donc euh, incha allah fekk ñu ngi ci suuf te yàlla may ñu ñu mun ko bëgguñu fasuñu yéene mukk tardé ko te ñu ñaanal ku ku bëgg rek yàlla dimbal la ci nga mun ko def. ah jërëjëf yéen la ñaan. Sénégal 7 ah Sénégal 7 merci bien ak au revoir merci. merci jërëjëf kon mbokk internet yi mu ngi noonu ah. euh, ñu dëgtal leen li nga xam ni moom mooy xew-xewu gàmm mbokk yi ëllëg si dimanche bi incha allah. moo nekk li nga xam ni kon moom mooy euh, gàmmu bu mag bi nga xam ne kon dañuy màggal juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, bu ñu waxee Kaolack nag xel day dem si Maulana euh, cheikh cheikh cheikh al islam El Hadj Ibrahima Niass Baye kon mbokki internet yi lii moo nekkoon xew bi nga xam ni dañ leen ko doon dëgtal réaction pèlerin yi nga xam ne kon bàyyeekoo nañ fu nekk ndax dégg ngeen ñii Gambie la ñu jugee si diaspora bi ñii si réew mi la ñu jugee bàyyeekoo nga xam ne kon mooy Medina Baye ngir ñëw màggal si juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Dieye moo nekkoon si caméra bi dinañ leen toppalaat yeneen xew-xew incha allah fii si Kaolack fii si Medina Baye ak Sénégal 7 TV jaa ngeen jëf